lu xew TV seen YouTube sénégalaise da nga bëgg publicité. asalaamaaleykum asalaamaaleykum ak ma ñëwee rek. Euh, euh, lu xew TV xibaar yi wér te euh, man nag tey fu may ñëwee mu ngi nekk Amina mi Jalika. Euh, ak joor euh, vraiment gis ngeen xëy na li joor di doxal ak Amina di ko perturbé fu ne la ko jëmale euh, di ko di ko yuuxu di ko def lu ne war ngeen xool noonu parce que jigéen boo xesee booy sëy rek boo xesee bu am doom wala nga am benn doom wala ñaari doom yaa xam ñaata doom nga am waaye boo xesee bu am doom rek Euh, war nga sam maanaam sa sey ndax say doom parce que doom yi euh, say doom nag xamoo lu mu leen di loolu dem bàyyi leen xamoo lan leen mën a jural ëllëg parce que mën na leen a manque de respect mën na leen dugal manque de respect mën na leen dugal manque xel mën na leen dugal manque de confiance xam nga euh, ba gis nga joor li muy def Amina foofu noonu mu ngi koy yuuxu du ko gëd xam nga te nit ki wax dëgg neex yàlla euh, booy sëy dangay muñ ndax sa njaboot ndax boo xesee boo am njaboot rek njaboot bi ñoo la moom moomatoo leen kon nañu jigéen ñi nañ nañ bàyyi xel ci loolu bu baax. waaw asalaamaaleykum. na ngeen def waa la maîtresse ziar leen ñëpp waaw film wax dëgg yàlla neex na trop trop trop. waaw waaye man na cadre Cheikh Diagne la wax Cheikh daal bu bëggoon jàmm moom day ber mareem ber laa la waaye bis bu leen boolee ci kër moom du neex man nag ña aawa laa buuru këram sax waaye nag mareem jàll daal mooy sama fan mareem dafa macha allah daal moom daal zéro foot nag moom sama xarit la au début mais dafa commencé génn gaam daal rusloo na aawa yi daal. asalaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu di bëgg a participer nag ci seen audio yi dugg ci youtube bi di wax ne maîtresse d'un homme marié macha allah moom fi théâtre bu neex la téléfilm bu neex la macha allah macha allah euh, Jalika nag li ko copinam bi def ñun lu ñu dund la parce que lu ñu def sama grande sœur la mu doon loo xamante ne ni bala ngaa xam Jalika ni muy réagir noonu noonu rek. ni muy mel ci sa biir xool bi ñu def la ko buñ la ko defee mbaa ñu def ko sa mbokk ci ngay xam li mu ko def noonu suñu mbokk bu jege moo ko def sama mag Mariem moom mention spéciale Mariem mention spéciale Mariem moom kontaan naa ci moom li muy doxalee moom kontaan naa ci moom bu baax a baax a baax a baax. asalaamaaleykum wàllu xew TV maa ngi leen di nuyu. di bëgg a participer nag ci seen audio yi dugg ci euh, youtube bi di wax ne maîtresse di homme marié macha allah moom fi théâtre bu neex la téléfilm bu neex la macha allah macha allah euh, Jalika nag li ko copinam bi def ñun lu ñu dund la parce que lu ñu def sama grande sœur la mu doon loo xamante ne bala ngaa xam Jalika ni muy réagir noonu noonu rek ni muy mel ci sa biir xol bi ñu def la ko ñu la ko defee mbaa def ko sa mbokk ci ngay xam li mu ko def noonu suñu mbokk bu jege moo ko def sama mag Mariem moom mention spéciale Mariem mention spéciale Mariem moom kontaan naa ci moom ni muy doxalee moom kontaan naa ci moom bu baax baax a baax a baax. asalaamaaleykum asalaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen nuyu leen jaajëfal leen ñëpp waa série moom wax dëgg fa yàlla série bi neex la série bi neex na moom wax dëgg fa yàlla waaw chaque jour ñu ngi koy suivre surtout man maa ngi koy suivre depuis au début waaw ba tey waaye moom ah Marème moom fi nga teg sa loxo moom foofu la fi nga teg sa loxo foofu la. bu ko fa teggi waaw mare moom moom moom mu ngi sëy sëy bi mu ngi def lu mu mën moom dëgg fa yàlla man moom depuis au début bi dafa ma neex daf ma musa neex mareem ak Jalika moom ñooy sama actrice dañoo mën li ñuy def te mën seen rôle réussir nañ ko bu baax a baax a baax moom réussir nañ seen rôle bu baax a baax ñu leen di jaajëfal moom ci kaw ci kanam rek waaw allo salaamaaleykum maa ngi ni ñëpp di ziar ñëpp waa maîtresse euh, série maîtresse d'un homme marié waa di ci kontaan lool nag waaw mu nekk série bu am solo waa série bu am importance tamit parce que dañuy jouer ay dañuy jouer ay réalité ay doomu aadama di ko dund ci seen biir kër di ko dund ci seen dëkkuwaay di ko dund waaw mais nag euh, neex na trop mais nañuy kii tam waaw parce que joor euh, ni mu def ni mu wax dee mu biram man dama cee ànd parce que xale boo nekkee ak moom mu nekk xale waroo def yenn ci kanamam parce que warul li mu wax tamit dëgg la warul dugg brusquement rek ci néeg bi noonu sans prévenir xale tam xale la rek te lu mu gis rek loolu mooy nekk ci boppam ndey joor lim ko ne tey mënoon naa dugg fekk ñu naka sudut noonu te xale day capté lim ko wax tam dëgg bu wér la ñu mën ne daal di gën a def attention ci moom waaw lim ko ne su fekkee nga yóbbu ko orphelinat tamit balaa caag mu delloo ko yaayam parce que jigéen tam boo nekkee moom nga tàggook moom bul yàq avenir doomam booy seet yërmande gi yaay am ci doom moom doom la yaay rek moo ko mën a am ci doomam man dama gis ne xale bi xëy na buñ divorcé dafa teel te xale bi xale la man pour man ba mu takkee joor rek dafa waroon delloo xale bi Jalika waaw man loolu laa gis loolu mooy sama xalaat di kontaan torop nag ci série bi neex na lool macha allah te tamit ngi yee doomu aadama yi ci lu bari waaw merci. asalaamaaleykum wa rahmatulah wala Lu Xew TV ziar naa leen na def nag yéen ci jàmm. nakay tey mbaa yéen a ngi am tawfeex ziaral leen yéen ñëpp ñu njëkk ba ku mujj rek maa ngi di ziare ah di wax kontaan naa dem si maîtresse bu nu marié kontaan naa trop trop trop macha allah Marème dilem bi sax dafa neex def la maa kontaan ba xaw ma nan laay wax ndax xam nga mënoon naa wax si wax dëgg bi waaye instant yi nii am na dëgg seen kaw ndax sosal na leen ba sëy si te bu fekkoon ne daa wax loolu seex. seex mën naa xuloo ak yaayam ak laal la te waxul loolu seex leneen la wax seex daal maanaam moom daal liñ naan waaye rendi sa loxo lay naaj waaye laal la ak ak ak e, meer jaan liñ doon rendi yëpp seen loxo la naaj waaw ndax ñoo ngi noonu ñu mujjee say si waaye kii tamit nu mu tudd joor joor tamit li mu def baaxul na bàyyi xale na bàyyi xale muy humilier ndax nekkul ak yaayam xale moom bu nekkul ak yaayam rek dañ kaa war a yërëm daal di ko kii yenn bi waaye comme ni koy daw ak affaire yooyu warul tax mu naan ay kii def may daw kii dafa nangam su ma jógee mu tiit affaire yi na ko bàyyi waaw te mënul tere nag Jalika ñëw ci ci kii bi mënul tere Jalika ñëw ci ci nu mu tuddati ci anniversaire bi ndax Jalika moo jur doomam

macha allah seetaan nañ ko dem si vendredi mi neex na trop trop trop waaye yéen a ngi si jaamu kontaan nañ waaye nag Marème moom na sant yàlla Marème am na xarit nag xarit Marème bii ah yàlla na yàlla laf cat seen diggante ñoom ñaar ba ni ñu commencé nii moom ñu continuer ko wax dëgg yàlla mais Marème tam kontaan naa ci moom ndax Marème bi seex ñëwoon mënoon naa doxee neneen noo xam ne seex day mer seen diggante mais fexe na ba defar diggante ba lijjanti sëyam ba fas yéene sëy si meer bi mënu si dara laal la mënu si dara woo Marème bokku ci seet Marème beneen affaire la <laughs> beneen affaire la Marème beneen affaire la mais laal la joomeegul day doog a joomi balaa joomi dëgg dëgg dëgg Marème dafa ñëw si kër gi man daal laal li ma koy wax moom mu fekkantoon maay moom daal damay toog neutre fas yéene ànd ak Marème nekk ak moom si jàmm ndax mu nekk ak Marème si moom mooy moo gën si moom mais bu indee beneen problème rek dina dem ba affaire bi yépp ci kawam lay xëppuwaat ndax dina dem ba Cheikh Diagne Marème lay ànd te su boobaa Lalla moom dina mere ku ko defu dara maire bi nag moom waxuma yoo xam moom ndax gis nga li naan xol du fen dëgg la ndax maire bi gis nga nee na Jalika neexul ba neexul maire du tooñ kenn wax na dëgg nag dëgg wér la wax nag kontaan yal na yàlla suñu boroom yokku xéewal defar lépp ba ngeen gën koo man télé yi gën a leer rajo yi gën a leer lépp gën a leer caméra yi gën a leer ñu koy joué tam dara bañ leen a jot bañ yeggale ko ci jàmm ak salaam ba ngeen jiwaat ji yu bare bare bare ci barke Seydina Muhammad maa ngi leen di ziyaare yéen ñépp képp koo xam ne yaa ngi si yaa ngi koy diglu rek maa ngi lay ñaanal jàmm ak salaam yàlla mi nga xam moom man am jàmm te comme defal jàmm nga am jàmm yàlla na lañu yàlla defal jàmm yéen ñi fi liggéey yéen ñi koy joué ñi koy déglu ñu seetaan ñëpp rek ci barke Seydina Mohamed kontaan nañ trop trop trop trop kontaan nañ trop daal yàlla nañ fi yàlla bàyyi daal jërë ngeen jëf. waa asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziar waaw di souhaiter bonne journée waaw man nag damay wax ci série bu démb bi ana maîtresse waaw et puis ah, euh, bien comme daal ni koy waxatee Marème daal kii na euh, jot na li bëggoon am na sëy bi et puis sëy sëna donc euh, ginnaaw jàmm nag ay waaw mu dal. fi mu teg tànkaam it noonu la sëy ka indi na sëy voilà mu ngi noonu te xam ne it xëy na comportement am si la ko laala di juger donc euh, na kii daal bu mu changé daal waaw bu mu def jikki kàkkatar na toog sëy te yàlla tax parce que naaru merem bi na xam ne xale yaa ngi leen di déglu ñi pare pour sëy ñu ngi déglu buñ ko yàq fiñ ko teg noonu la et puis euh, euh, lalla Lalla na na toog palaasu yaay xam ne mooy aaw buuru këram mooy muñ lépp lu ñëw ci kanam kawam lay dal mu muñ rek te te te te uh, mareem ñu sëy yàlla tax te xam ne coow baaxul it ci kër te xam ne yàlla uh, bu gisee ñaar ñu bëggante ci kër jàmm ñëw seen jëkkër buntu ba sëgam gën a ibbeeku jàmm am ci kër gi am ci ñépp waaw te loolu la ñuy man série bi. Euh, bu ma sañoon du gudd parce que presque booy xool sax ma euh, attendre li mu bëggoon ñëw na donc li si des bareetul donc bu mu gudd daal waaw bu mu gudd ñu jàll si leen daal mais macha allah li ngeen di defar di ngeen di def nii neex na trop trop trop man fu may ragalee rek mooy ñu dem ba si biir rek mu gudd et puis mu mu mu kii daal mu niñ ko bëggee woon amul ñu waroon a ragal bëgg say dugg du ñu mën a dugg. ñi nekkoon aaw it daal di découragé donc euh, nañu ko kiiwaat daal mu gën a neex lii am am na ñu jàll si leneen waa et puis à kaw de de nuñ koy joox ah kii ah man daal su ma sañoon euh, juumte day am joox euh, nu mu tuddati jalika jëlaat jëkkëram c'est ça pour man dañuy wone na rek loolu mën na nekkaat tax nay bëñax làmmiñ ñoo dëkk moo gën daal série bi daal neex pan bu ma sañoon daal joor jëlaat euh, jëlaat euh, non non Jalika jëlaat euh, jëkkëram waaw man si sama xalaat bu gàtt daal loolu mooy sama sama souhaité waaw te it kaaw nu mu tuddati bi nu mu waaye kii kii papaam nekk prison waaw ak Moustapha waaw ñu ñu jàppale ko daal ñu xam waaw ñu jàppale ko daal parce que it metti na xamul yaayam la xamul kay tamit papaam fu mu nekk et puis bien daal na faa yërëm ka te ñu ànd daal ci jàmm asalaam mais ñu ngi leen di gërëm di leen sant damay bañ a guddal et euh, neex na trop yal na leen yàlla jàppale yàlla sàmm leen te li ngeen fi ngeen teg seen tànk noonu foofu la bu leen ko teggi gis nga théâtre ak film yi dafa war a am sens waaw dafa war a am sens bu amul tul sens rek du neex. du du ñu sawaraat si beneen buy ñëw wasalaam maa ngi leen di gërëm di leen sant. asalaamaaleykum yéen waa Lu Xew bi maa ngi leen di nuyu bu baax leen ziar di nuyu waa maîtresse d'un maa ngi leen di nuyu maa ngi nuyu waa série bi yëpp di kontaan bu baax nag ci série bi ñu kontaan bu baax di ko rafetlu incha allah kontaan si Marème Marème yow maa ngi kontaan maa ngi kontaan si yow ñoo par man ñaareel laa comme yow maa ngi kontaan bu baax waaw jigéen daal day jóge yow daal defoo dara nag lu dul jóge dangaa jóge dong nag macha allah fi nga jàpp foofu la jigéen daal day jóge man booram man jëkkëram macha allah ñu ngi rafetlu bu baax li di joué ñu si kontaan bu baax baax baax waaw. parce que série bi ñu ngi ciy gis suñ bopp bu baax ñu bari ñu ngi ciy gis seen bopp parce que li ngeen fi joué rek moo fi am moom la ñuy dund Sénégal gii waaw di wax na laal la nag yow nag moom premier danga ma neexoon lool commencement bi wax dëgg yàlla dama laa fonkoon ma laa soppoon wax dëgg yàlla waaye temps yaa ngi bàyyi si loxo ah yu tamit nag laal la nag yow aaw ma nag aaw mat nag aaw moom day mat lim doon dara waru laa na a ñëw xale bu ndaw waru laa na a ñëw di la jiital nag mag nga nag mu nag si daal sa jëkkër nag ni ko waree yow daal patt ba nga def daal moom foo ko war a yóbbuwaat patt ba xam nga xale te di nag rôle mag mag moom day xam ne mag la boo dee mag moom lu nekk yi danga koy muñ lu nekk ngay gis dangay muñ waaw di rafetlu bu baax nag li ngeen di jouer luy moom mbubb dong la dangeen ko sol bu ngeen pare dangeen koy summi am dara lu am defoo kontaan seen baax di wax seex na yow na ee eh, seex rek la te nga gérer sa ñaari jabar yi waaw boo am kàddu yaa moom sa seelal sa kër góor day am fit waa ñu wax ne yaay seex nag yow nag yaay seex nag ah mag du doxale nii nag yow bañ ba tëdd yaay seex yaay seex kay ñaaxaan nañ la tëddee bul far fenn dëgg la sax dina am koo xam ne moom gën a moom a sopp mais nag bu ko fesal ba ñëpp di ko xam nay rafet waaw di wax na jëli ka yow kontaan naa si yow bu baax dëgg yàlla jigéen ju jàmbaara jigéen ju ju mën sëy nga ju bëgg sëy mais nag yàlla moo la dafa sa jëkkër ji mais nag ak lépp lu si mënta ko am rek na rafet parce que dalaa jural ñaari doom lépp lu si mënta ko am rek na rafet da nga daal maîtriser sa bopp di wax ne biram moom xam naa ne moom li koy xaar mi ngi ñëw parce que joorom boobu joorom boobu nuroowul jalika li jalika doon nangu moom xam naa ne joor du ko nangu xalaatu ko sax parce da leen xamal di wax ne rakki rekk moom man dama laa yërëm sax yow xam naa ne moom li dund yëpp dafa metti te am na leneen luy ñëwaat xawma nag loolu lu muy demee mais loolu tamit xam naa ne du neex waaye ak lépp lu si mënta ko am rekk na nga ànd te sa conscience téye sa dara bañ la di la gën a perturbé ngay ñàkk sa conscience di rafetlu bu baax seen série bi di kontaan si yéen bu baax li ngeen di joué yëpp dafay am dañ koy dund ci Sénégal gi ñu ngi kontaan ci yéen di leen ñaanal si kaw si kanam. salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen siyaar bu baax leen def seen wàccuwaay bi madame Diagne sama doom baay bi yaa ngi yëngal jamono billaay barki yàlla yaa ngi yëngal jamono ni ngi sëy daal neex na ma trop continuer rek. li nga ci kër gi dina ma neex defanteel ak la rek waaw moom la de la loolu la loolu kay xam naa dama woon ko liirul noonu lay demee sax nag waaw kontaan naa trop nag. démb kii bi moom série bi passé moom maa ngi doog a seetaan sànq ci YouTube bi na trop am na solo Marème loolu mu def sax mooy fula sëy ji waaw sëy ji jàkkaarloog Lalla comme que Lalla moom woo nañ ko ci jàmm wuy siwu ko ci jàmm tamit moo ngi koy jàppale ci ay konéréem mu sëy yi sax mooy gën a kii eh, mën naa dina wàcc fekk ko wala dina dina def solution daal mën naa solution am solution mën naa am maam waaw kon sëy gi baax na ci torop kontaan naa torop ci yéen bëgg naa leen daal sëy di kontaan nañ ci kontaan nañ ci daal mhm. ñu ngi koy suivre chaque jour tout le temps tout le temps tout le temps mais Marème laa faral man moom Marème Marème laa àndal ak Raki ak Jalika parce que laala moom laa àndaloon début mais après day day daal day bàyyi loxoom parce que tout le temps mi ngi kaas mi ngi kaas li Cheikh Diagne dugg yëpp Lalla moo ko si poussé parce que damaa gëm ne bu réagiroon neneen peut-être Cheikh Diagne du dem di laal la mais xam nga nit góor kenn du ko topp ba mu sës loolu la rek mais kontaan nañ ci nag waaw jaar na yoon ñu ngi ciy jàng tamit aussi bu baax a baax a baax que li ñu intéressé ñu ngi ko ciy jàng bu baax te gisuñu ci tamit li nga xamante ne lu ñaaw la ba war ñu ko mën a seetaan wala en tout cas daal ñun bëgg nañ ci. waa asalaamaaleykum waa sit bi maa ngi leen di nuyu bu baax baax bàyyi na ngi ci jàmm maa ngi leen di ziar man film film bi maa ngi koy seetaan bu baax a baax maa ngi koy seetaan commencement ba fee benn rawaguma ci vraiment waaw euh, gis nga Marème mi Marème li muy dund nii man genre boobu dund naa ko parce que ñu génn ak boroom jabar te macha allah ku baax ku am yërmande koo xam dafa jógoon pour takk buggul dara fo waaye daal aaw bi ba mu ko yëgee jaral na ko lu ne jaral na ko xëpp asi jaral na ko jàmpaaka man ne ko xaaral ma libéré bàyyi leen sa aaw parce que man sëy jaraluma loolu ma dem li wax dëgg la de sëy jarul yenn yi jarul yi daal noonu laa ko gisee waaw li wax tamit dëgg la seex moom war na ci jàpp bu baax waaw moom wuru ko gën a gore daal waaw bu ma paree nag may wax ci ka euh, Jalika Jalika neex na ma trop vraiment waaye lii kat lan nii métti na mais na jàpp ci Macky parce que tamit nuru na góor bu baax daal nuru na góor bu baax waaw te nag des fois nga génn ci sëy duggaat ci sëy mu mel ni mësoo sëy waaw day neex trop mu mel ni mësoo sëy ak keneen parce que day neex trop waaw sëy bu naqari moom boo ci génnee am keneen ku baax rek jàppal ci kooku da nga comprendre xarit bi nag moom moo ko sutee parce que di ànd ak nit guddi ak bëccëg xëy ñu ne kii kat may nañ ko sa jëkkër bi woon loolu dafa xaw a doy waar waaw loolu dafa xaw a doy waar loolu kese moo ko choqué mais nag daal affaire bi daal neex na trop ñu ngi ciy jàng lu bari bari bari bari te lii ñuy wane nii moo am ci dëkk bi ak am sax am na fi bu baax a baax parce que gis naa mi gis naa ay cas yu mel noonu yu baree baree baree bari bari bari yoo xam ne maire bi day ànd ak aawo bi aawo yi nag aawo yi nag bàyyi li ñuy def te nangu nag nan nangu nag nan nangu tax ku teel a nangu nag day woyofal ay dóor